Omega, ga Samy c'est Rita Paradis Massay Balago Faramaren qui est parmi nous. yéen a ngi ànd ak suñu people TV ci ay chroniqueur Rita comme nu ma koy defee saa su ne ah hmm, ndeysaan waaye yéen ngeen ne du ngeen bàyyi daal ndey njaay baan na yaa mu dund daal dundam waa Sénégal lu tax ñu soxor bon iñaan iñañati yéen da ngeen bëgg daal nit yéeg ci sareetu mbaam rek ne du fa wàcc ndey njaay banna yaay yaaxay timulaanaa wàcce na ci sareetu mbaam gi jël jat privé gi ngeen ne daal du ciy amee ngolli ngaaj ngeen ne da ngeen koy génne lomotifam un de trois bu ñu waxee ngeen ne la mu fi defoon dugg na fi génn na fi waaye yéen yaaxay timulaanaa dama leen di laaj réew mi kan ma fi amul lomotif yow ee eh, bu maam yàlla doon wax tey ayib yi ngeen def nii bu ko doon wax loxo dar gémmeñ de waaye bàyyi leen xale bii mu dund nag yéen jël ngeen Ndeye njaay Banaya di ko turum tuj di ko toroxal di ko xoqatal di ko ñoññental waa léegi moom ba mu juge ca yéen dem feneen fa nga xamante ne ca fare maareen ya nga xamante ne dañ lay fay xaalis bu mët ngay yéeg avion di dem di ñëw di fec fecc mu xeere ñu lay fay xaalis bu xeere bu duun waa ngeen ne sénégalais yéen loolu daal mënta nekk fan ngeen ko teg waaye yéen yéen sonal xale bii nag e sonal ngeen bana ya ah. yow fecc gii fi calaan si fecc ko ku nekk ubbi saw làmmiñ bu rëy naan nday njaay banna yaa dugg na fi génn na fi bu ma la waxee la ma waa ku nekk na génneel moroomam la mu ko xamal ngeen xool yéen yéen a soxor iñaan iñañetti nag nday njaay banna yaa seen rakka la bu ngeen ko munta rakkoo ngeen bàyyi ko fa mu nekk di fecc feccam ndax nday njaay banna yaa am na yar am na respect am na réciproque am éducation de base gis nga njuumte nag munta ñàkk ci doomu aadama bàyyi leen soxor ak iñaan jàpp nit ci benn point rek ne du ngeen ko bàyyi simila saala lu nit ka wax rek ngeen ne da ngeen ko koy génneel waaye da ngeen a gën ma maam yàllaa ngi nii ku ci nekk am na lu mu yor ci yow eh maam yàlla borom bët bu rëy bii bu amul woon sutura ku mu ci génneel sa ay loxo dar gémmiñ yéen a ko dàq def lu bon da ngeen a rek ba sam feeñ waa ngeen xale bii du dund dundam daal happiness legalize am jàmmam te fi mu nekk nii nday njaay banna yaa ngay belli di nayi di fecc fecc mu neex hydraté yaramam ba mu rafet xam nga boo nekkee ci kër goo xamante ne amoo fa benn problème ñëpp dañ laa bëgg dangay belli di nayi mën a fecc boo sañsee ba génn àddina bi yëpp bëgg la public bi yëpp bëgg la ngeen ne yéen dundam jàmmam jooju du ko dund fan ngeen ko teg Sénégal nag leen ngeen bëgg yéen jàmmi nit dégg naa bugg leen ko yéen sénégalais yi jàmmi nit ci boppam ngeen buggul yéen xam nga lu ngeen bëgg kuy torox ñu naan ko ndeysaan ketal leen ko waaw moom kay dimbali leen ko ay waay yërëm leen ko defal leen ko li gis nga nit ñi nag dina dinañu belli ci belli gi naayi ci naayi gi fecc ci fecc mi xeeñu ci parfum mi sol ci yére yi yéen day njaay bànna yaa mënu leen ngaa ngaang leen mu wadd ngeen bàyyi doomu jàmbur ji dundu na naqar dund naqar ba baat ba dee woon baat ba daa dee woon day njaay bu doon wax baat ba day xuur fi mu nekk nii mi ngi belli di nayi macha allah di fecc muy neex am classe kenn gisatu ko ci lu ñàkk fayda ngeen ne loolu daal moom du mën a nekk daal parce que lan jugee na daal ci yéen ngeen ne du ko jàmmal may leen nit ki jàmm ku ci nekk def nga loo xamante ne bu yàlla doon uñi sutura nit tey loxo day dar gémmiñ bàyyi leen doomu jàmbur ji nag kii xale la nag bàyyi leen ko mu doxal yoonam ay waay Sénégal yéen a soxor iñaan yéen daal na nit kay torox di leen ñooru di leen ràllu di leen maral seen taat di mar seen tànka ya ngeen di ko toroxal di ko turum tuj di ko def affaire yu soxor yu metti muy jooy gu guddeeg bëccëg di dugg ci biiram néegam di làqatu di jooy ngeen di kontaan di bég ndey njaay banna ya fa mu nekk a ngi baax ndax nag ku yéegoon ci sareetu mbaam nga wàcc sareetu mbaam nga yéeg ci jat privé kooku mi ngi dund nag dundam bàyyi leen jàmbur bi mu dund dundam Sénégal soxor ngeen iññaan buggu kuy dem buggu leen kuy dem buggu leen ku mun liggéeyam di ko def ku mun liggéeyam di ko def ngeen di ko fakkastal ak di ko faagaagal di ko xoqatal ak di ko ñoññantal seen jikkoo ñaaw te bon ngeen soxor iñaan yéene wu leen kenn jàmm buggu leen kuy am lu baax buggu leen kuy am lu baax buggu leen ku am jàmm e ala kama sala naaxira atoy sa sabali bref nee naa la le golden boy de Framaren le golden boy de musique sénégalaise muy Maria Sin may sa bige Maria Sin Mar sa king the of nee naa la dafa bëri ay date yu mu war a def date yi nag chaque jour dinaa ci jël benn def ko ci sama chronique <laughs> Maria Sine yaa meilleur nag nee naa la le 22 juin le 22 juin laa la wax de Maria Sine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 yaa xayti mulaanaa nit bu jugee ci yow te jigéen sax danga koy teral te ndey njaay bànna yaa sa rakk la Sidi yéene leen xale bi jàmm nag xaw ma nag ndax yow ci nga bokk mais bu fekkee ne yow loolu nga def moom waroo ko def Sidi Sidi yéene leen xale bi jàmm nag xale bi nekkoon na ci yéen ngeen di ko xoqatal di ko ñoññantal di ko xoqatal di ko ñoññantal ba mu génn waa ku wàcc ci sareetu mbaam dem ci jet privé du ngeen ko may jàmm mu liggéey nag ngeen bëgg a génn rek di ko fàttali démbam naan ka sa lombiti fa waa dama lay laaj Sénégal gi kan moo fi amul le motif kan moo fi deful naka su dul noonu gis nga borom bët bu rëy bii muy yàlla bu doon génn di weer nit loxo dar gémmiñ bàyyi leen soxor ak iñaan génn di wax ay bu jàmbur te yor sa bu ne weeng ma nag yow yaa génn di wax waaye kom nekkoon na ci yow ba jóge ci yow waaye yaa xayti mu bàyyi leen ko nag te ñaanal ko jàmm fecc su njal ndaw si mu fi fecc calaan si bii mu fi def ku nekk ubbiw làmmiñam rek naan dugg na fii génn na fii kan moo nekk ci àddina bi ku mës ta def le motif yàlla waroon naa génn di weere nag yow kay yaa xayti moom wàcc na ci sareetu mbaam dem ci av eh, ñu di ko fay lu duun muy ci avion yi di dem di ñëw di belli di nayi waa ngeen ne du ngeen ko yéene jaam yéen Sénégal lu tax yéene wu leen nit jaam yéen daal na nit ka di torox ba ne tot ngeen di ko yaram ak di ko dimbali gis nga fii nag nit ñi kenn du fi torox nit ñi dinañ liggéey ci liggéey bi téye ci xaalis bi belli ci belli gi naayi ci naayi gi parfumé woo ci parfum gi Ndeye Ndiaye Banna yaa am na respect réciproque yaru na amul kenn ak kenn problème waa lomotif si mu fi defoon rek affaire ya jeex muy liggéey liggéeyam bu nu nee benn ñaar rek ngeen ne da ko koy génneel yàlla nag kaay ma wax la bés boo weeree doomu aadama di nga toog ba jëmi jamono mu weer la weer goo xam ne doo xam fu ngeen koy waxee bàyyi leen nday njaay bànna yaa ku ci ne du nday njaay bànna yaa moo leen metti de xam nga ku leen metti sa kings of mi am ay datam yu bari dat bi nag samay chronique chaque jour dinaa leen ci cabaxal fi mu nekk ni ku nekk sa biir a ngay daw may leen nit ñi jàmm artiste bu mag bee ñëw de dëkk bi nar a yëngu xam nga artiste bu mag bi bu ñëwee dafay am ñu muy déranger ba nga xamante ne dañuy bëgg a jël ay fansam ak i fecc fecckatam di leen déstabiliser ànduma ci bu fekkee nag yow néew ma loolu ngay def di Sidi ndax yow nit ku mën a woy nga mën ngaa woy baax nga man nag duma sa fans man moom mariage si na ma ñor rek waaye dama ne bu fekkee yow yaay wax wax ji wala ngay génn di kii génnal ci yooyu baaxul nday njaay sa rakk la munoo wax a wax a wax ba du doon sa waaye xale bi yéene leen ko jàmm nag ba mu génnee ci yéen ba tey mu ngi belli dinaa yi di fecc muy neex ngeen ne du ngeen ko yéen a jàmm wala da ngeen bëggaat mu duggaat ci sareet ak mbaam gi et sareetu mbaam gi du ci duggaataa sareetu mbaam gi du ci dugg ci jet jet jet privé bi lay toog jet privé bi nga xamante ne salaire bu duun la fay am ñu koy fay fay bu xeere muy dem di ñëw di tukki di ñëw di sañse lu rafet di fecc yéen lu tax bëggu leen ku baax yéen daal nay sagare di tilim di xasaw di dann di déranger ngeen naan waaw saan moom kay nañ ka dimbali nañ ka kettal gis nga bàyyi leen day njaay bànnaya bàyyi leen day njaay bànnaya defu leen dara li leen di déranger mooy sa Kings of gi ñëwaat gaynde gu mag gi ki ñëwaat rek war a daal yëngalaat game bi di woy woy yu xeere public bi di ko wuy ji ko kookoo leen dérangé ba tax ngeen bëgg xale bi nii dégg daali démb daali tey daali masaaya di fecc ngeen bëgg ne da ngeen koy génneel le motif am loo xamante ne loola nu mu yàggee àddina yëpp fàtte woon nañ ko ay waay lu tax ngeen soxor iñaan iñañati ku nekk sa wërsëg ngay lekk gaynde gu mag gi du leen tele teree cof dina leen bàyyi ngeen di cof ci ruusit yi loolu daa jara mer daa jara nekk lu nekk ngeen bëgg fee génnaat di ko wax Ndeye Ndiaye Banaya ah waa dama ne Sénégal nag kenn daal du fi dund dund ci jàmm ak salaam waaye génn leen ci yooyu nag bàyyi leen xale bii mu dund bàyyi leen xale bii mu dund dundam nekk ci limu mu nekk eala kama salana xiraatoy sa sabali bref hello guys yaa xay timulaana hmm. nee naa la da ngeen a tiit seen fit dem bàyyi leen day njaay bànn yaa defu leen dara datu maria sin may sa biige maria sin yi nga xamante ne moom la am foofee le 22 juin en live la koy joué foofee ca Milano nee naa la moo leen tiital waaye di ngeen gën a tiit ndax nee naa la date yi da ngeen koy am ci sama ay chronique chaque jour ma dugalal leen benn date boo xamante ne daf ko war a joué waaye foofee ca Bercy Milano la Yacine Meissa Bigué sa king of le golden boy de Faramaren waaye nee naa la ki nga xamante ne bu nee dar rek nee naa la ku doon woykat say laaf day daal di tooy nga daal di toog nee naa la xoolal nday njaay bànnayaa defu leen dara bàyyi leen jàmbur liggéey rek la nekkee wax leen ci datu may sa Bigué yi nga xamante ne ah moom la ñuy préparé muy dat yu xeere la le 22 juin foofee ca Milano nee naa la xoola Bercy Milano mu nar fa jouer en live la fay jouer nag bu ko kenn raté diaspora bi waa Espagne Italie Allemagne France ñëpp ñu ngi koy préparé waaye nee naa la man maa ngi koy préparé te ni ma koy préparé mooy damay daal di def sama coiffure bu xeere bàyyi leen Ndeye Ndiaye Banaya yaa mi ngeen di sànni xeer xale bi nga xam ne bu nee bëreet fecc àddina yëpp dañ koy seetaan dañ koy déglu yéen nag yéen laay wax yéen ñuy sànni xeer nday Ndeye Ndiaye yaa dama bëgg ngeen wax ci datu Maria may Maysa Bigué yii moo ëpp solo yii ngeen di wax naan jokkoor maa jor jokkoor leen am Ndiaye indi joob yaa ma ne maane la yéen datu Maria yi yii du ngeen ci insister moo gën seen yi ku nekk am nga sallo lomotif bu ne ñum boo xamante ne bu la yàlla génneeloon la nga xamante ne yaa ngi koy def ko dar gémmiñ ku ne am na lu ne ñoom ñooma sàll ne weng woo def te kenn du la ko wax bàyyi leen day njaay bànna yaa defu leen dara li leen tiital ba seen biir di daw waxu leen ko mooy datu Maria Sin sa Kings of datam yi muy préparé foofee ca Milano ak Bercy Milano en live la koy joué <laughs> ay ku ma fa dëgg ku ma fa dëgg nee na nee ma massa waaye damaa bëgg xale bii ngeen bàyyi ko xale fecckat bii nga xam te fecc rek lay def boolewul daraa ki wax te nee naa la xoola eh nday Ndiaye Banaya defu leen dara de leen tiital mooy sa king of Maria Sine may sa biige faramareen bi nga xamante ne ay datam nee naa la bokku ko kenn te dat ya xoola da kay joué ci jàmm ak salaam ndax diaspora beeg ñëpp a ngi koy pare te chaque jour ci samay chronique di ngeen gis ma daal di leen dugalal xalal leen benn cat laay bañ benn laay dugal chaque jour ma dugalal leen benn ngeen di dee di ngeen gën a dee nag bàyyi leen xale bi defu leen dara insisté leen wax ci dat yi mu am dati Maria yi du ngeen ci wax ngeen di wax ay lomotif fu Ndeye Ndiaye kan moo amul lomotif ci àddina bi àddina bi bu yàlla wuñu woon au sutura nit ñi kon di ngeen dox kon loxo day dar gémmeñ may leen ñu jàmm sama vidéo xoola bere faj yaa xayti mulaanaa waru ko woon a am a ah, doy na waar